jigéen ak mag ak ndaw di nuyu tamit waa kokki Cheikh Diop mi nga xam ne mooy wax ci turu sëñ xabbaan wax na ko léegi wax na ko léegi nunu ak waa kokki kokki ak daaray kokki ak daaray li ñu leen di wax mooy ne waa Madina waa Ansaria lañ seqoon ak yonent bi ñooñu loolu lañ seq ak waa kokki ñu ngi leen di di leen ñaanal yàlla it ëllëg ak si biir ña daroon yonent bi dimbale woon ko waa Madina ya ko fekk woon nañ ko jàppale woon ba lislaam taxaw ëllëg ak si biir bépp teraanga boo xam ne bii ñooñu yàlla dinañ koy cërale yàlla ko cërale waa kokki ak li aju ci ñoom ñun mënuñ leen a fay di nuyu suñu sëriñ sëñ Seer Mbay mi nga moo fi teewal sëñ Youssou Mbaye mii sa généralu kër maam Cheikh Mbaye te daaray Kokki suñ koy wax maam Cheikh Mbaye tax mooy kin nga xam ne kii moo bisub gàmm la woo sëñ ma saxiir mu ñëw mu ne ko tey la bisub gàmm waaye ñëwal nga dem ci sa liggéey ñëwal nga dem Kokki ku ko te ngir yà ku ñëw nga jàngal ko te ngir tax yemul ci loolu yëkkati ak njabootam jox ko muy Baye Sam alaaj jili Euh, euh, sëñ Abdou Salaam ak njaboot gi yëpp yëkkati ko jox ñu waxoon ci tamit ay wax yu kéemaane dana woon Ahmad Saxir mii day te loolu Baye Sam nu ko nettali Ahmad Saxir mii mënoon naa koo yóbbu Fuuta mënoon naa koo yóbbu Waalo mënoon naa koo yóbbu Jolof mënoon naa koo yóbbu fu Bawol waaye nag fii ci kokki laa naan ko riif riif nag garab lay doon goo xam ne gii du ñàkk ker benn waxtu du ñàkk du ñàkk meññe benn kon yal na ko yàlla fayal muy maam Cheikh moom sëñ nag saxiir day maam Cheikh Mbaye da ko fa yebal 1939 mu ànd ak benn jabar jarbaatam buñ naan baraama gi sëñ nag saxiir ñëw kokki yàggu fi dara jarbaatam boobu fàttu xale yi ji génn muy waxtu nawet ñuy ci ab déeg lu war a mat juróom ba juróom benn ba juróom yi nga ji lakk na ko lakkati ko lakkati ko lakkati ko waaye musta tax sinna saxir yox-yoxi lu day ne dayit we loolu musta tax pas-pasam ak yeneen ak lam doon def dara wàññeeku ci am na bis boo xam ki daara ji day lakk daara cëpp a ngi lakk fekk mu demoon ca dëkk ba timi sa ngi jot ñu ne ko daara jaa ngay lakk mu jóge ca dëkk ba di ñëw ba mu jubee jàkka ji fekk waxtu timis jot mu ne noddu leen wallaahi ba tey duggul ci kër gi pour na dañ fay lakk gi waaye yàlla mi daw dawul loolu seytaane mooy dugg foofu ndax li mu bëggoon mooy mu xalaatoon ne dañ daa fay lakk gu a julli waaye dafa te ne nodd leen ñu nodd fañ ne allahu akbar yàlla xam ne daa mel ne dañoo asamaan si daa wàcc am ndox sawara na fa yem fa képp sawara daal di fay loolu nag li ko ko mayoon mooy pas-pasam mooy ak dogoom mooy ak dëggoom xam tamit li ko maam Cheikh Mbaye xàllal ak ci lim lim ko xëccal mu dox jëm ja geesuwul yox-yoxiwul demul genn wet te ku jàpp ne sëñ ma saxir daa nekkoon di am di dund ci lu ko neex nax nga sa bopp yu mujj yi atam yu mujj dañoo dem ba tabaski gi des ay fan amul am tabaski mu ne sëñ Maxtaar duma ko lebi duma ko laaj duma ko yalwaani duma ko laaj kenn te duma ko lebi su yàlla defee ma am ko mu tabaski su amul ma tabaski ma jéeg bañ demee bañ ne sabale tabaski la soxna loo yàlla lu ko yàlla yërëmal yéen am xar mu doog a tabaski at mu nekkit ma wax leen ne leen ne at mu nekk wax leen ne leen ne keroog bi mu faatoo teñ bëgg nuñ ko sànge man nii sama mbàjj lañ ko jox te mbàjj moomu moo ma ko joxoon te mën na ko ci loolu waa këram yi sama yaay Mariama sama yaay Sadio ñoom waa këram xam na ñoo war a ah li fi nekk xanaa mooy mbir mi faatoo day kenn ku nekk ñu dëkk sax morso jox la lii la doon dund waaye nag gëm yàlla doyloo yàlla lool ci fan ñu mucc muy bisu dimanche sëñ Matar ñi nee na ko fekk càmm ah bu faatoon ca Louga toog ba yàgg mu ne ko ah sarax sa day war nañ caa mu ne ko loolu andi wuñu foon jàng ak jàngale moo ñu fi andi woon dañuy toog ba mën ko su ci xajee ñu def ko su ci xëjul ñu bàyyi ñu toogaat ba yàgg mu ne ko mu ne ko da am naa ak jaaxle ak njàqare tuuti de mu nekko ci lan mu ne ko xanaa dund bi li fi nekk day matatul ñëluñ ñetti fan mu ne ko Ahmed Sakhir day du jàq du tiit du rof ana yàlla wóor na ma ne man yàlla dina ma dimbali muy dimanche altine talaata àllarba mu génn àddina àllarba ca suba am oto bu ne jamee fii ci daara gi yëpp ceeb ñu ne ko lii lan la mu ne ambassade bi Italie moo leen ko jox te ñun di ñu leen xamul leen ba boobu am doo beneen te 30 tonnes gaare bu def diw ñu ngi la mu ne ambassade bi Italie moo leen ko jox ba boobu am doo beneen 30 tonnes gaare boo xam ne bii yàpp supp yi la def ak meew ne ambassade bi Italie moo leen ko jox ca ngoon ambas ambassade ba bañ yabalee délégation di vérifier ba xam ne yéen woon ñëw na ba ñu accès lañ fekk ñu di ko sang man li leen sëñ Maxtaar booleel moo moo war leen magasin ña leen dimbal naa nii waaye ki jiite woon liggéey bi day moom moom la ñuy waajal ni génn àddina ñu ne qu'importe ñun dañ doon def te yàlla tax kon la mu na ne yàlla na ma dimbali yàlla suturaal na ko waaye tamit. fa mu tegoon tànkam sëñ Maxtaar mii fu ko raw la teg tànkam ñun ñëpp wax ma yéen ñu teew waaye waa Daaray Koki ñëpp moo ñu gën ñun ñëpp moo ñu gën ndax sëñ Maxtaar ba mu ko fi bàyyi dañu ko bàyyi ñun ñëpp mel ni moom wax ko yenu te yoox-yoxiwul jooyul jàmbatul te lépp loo xam ne ni sëñ Maxtaar da ko fi bàyyi muy benn def na ko téeméer te yéen ñi ma séqal xam ngeen li ma leen di wax kon warugar la ci nun ñu ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak njabootam waaye warugar la ci nun fa seen ma saxir tegoon tànkam moom mu teg fa tànkam dama ne muy man muy sama moroom nañ jéem a teg suñ tànk foofu te jéem a dox aw doxinam te suñ ko defee it wóor nañu yàlla dana dimbali li ci des nag te loolu mooy nun di sëñ yëpp nañ dayloo yàlla nañ yaakaar yàlla nañ wóolu yàlla nañ sàkku ndimbal ci yàlla waaye buñ ko biir suñu wér buñ ko wéer ci kenn te loolu dama koy wax nun sëñ daara yëpp nañ dayloo yàlla nañ nañ nañ yàlla doy ci lépp suñ mbir yëpp lañ ko joxe yàlla te yaakaar ko te jox ko suñuy mbir te bañ ko wéer ci kenn di wax nag delluwaat di sant ak a ñi nga xam ne ni ñoo bokk daara ji ñoo bokk daara ji mu yow alaaji Abdou Aziz Silla yow alaaji Asnaw yow Serigne Buub ak ñeneen ñi ci des ñëpp yow daamloo suñu doom nga xam ne ni liggéey bi ñuy def sa baay moo ci mënoon te léegi yaa ci man yéen yàlla guddal sa far dama ne suñu wax mbir ñu di ko yemale ci ñooñu nee na ñun ñëpp taxaw nekk benn soldat sa yéene taxaw te liggéeyal daara ci te suñ ko defee it suñ ko defee danañ ci am ndam am ci ngërëmal yàlla suñ ko deful ñeneen danañ jóge ca àll ba yor ko ndax suñ bi sax loolu la wax su ngeen ko nanguwul wax su ngeen ko nangu te yor nit dana jóge ca penk ku ñëw yor ko boobu amaguñu waa Mali kon nañ yokk ko góorgóorlu ñëpp ñu ngi def madame la ministre dana kuñ la seedeel it soo demee nga wax ko président te ku ko jege la monsieur muy monsieur Maxime Ndiaye taxawaayam ci daara ji ambulance boobu ma lay wax noonu ko dox daara ji nii moo ko pentiraat ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen te luñ ko ne daara kooku rek mu ne ca laa bokk daal di def na nga ko xam na ko wax président it ne mi ngi jàppale daara ji muy monsieur Maxime Ndiaye moom mu ngi koy jàppale biir ci ak bit waaye tamit dañ la yóbbante ci mu le président doomu daara jooju ma tudd léegi muy aas ndaw muy Abdou Silla muy Serigne Boubou ak ñu mel ne ñoom ak ku mel ne Ablaye Dia ak ñeneen ak Moustapha Ndiaye xam ne ay opérateur économique lañ ah ne état xam ne jàngale taxaw nit ñi toppatoo leen ci wàllu jàng loolu warugaru état la ñooñu nag li ñuy def lépp état lañ ko jàppale kon ña ngi ñaan état it lu leen doon gën a jàppale na leen gën a góon gën leen a dooleel gën leen a jàppaleel seen alal yóbbuñu ko Maroc yépp yóbbuñu ko fenn fii ci réew mi lañ koy def bokk ko ak doomi daara yi kon nag ñooñu ñu ngi ñaan président lu mën ci jàppale leen na ko na ko dolli waaye lu mën ci jàppale daara yi mboolem daara ci senegal yëpp it président lu mën ña ngi koy ñaan mu gën a dolli taxawaayam ci daara yi doon taxawaayam rafet na di ko ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla yéen ñëpp tamit yàlla dolli leen sutura dolli leen teraanga te aar leen sàmm leen wattu leen ci lépp loo xam na nii luy lor la waaw loolu ab fàttewuma ko dama koy mujje sëñ Maxtaar nee na ñaar dama damaa ñor moo tax ma di ko mujje ñoom sëñ Maxtaar nee na ñaar ma ngi leen di seedeel ne mbootaay gi seen taxawaay rafet na ngeen xam ne ñoom ñoo ñu yore kàddu daara ji ci biir ci biti fu ngeen leen gise xam leen ne sëñ Maxtaar ngeen gis seen taxawaay surtout nag xale yi ndax kenn ku nekk gis na ren maanaam jëm ci wàllu publicité maanaam rajo ndaje mi ren ni ñu ko teewal siiwale ak fi ko jaarale te loolu lépp xale yi la kon ñu leen di ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan dool leen sutura ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla dool seen fan dool leen sutura beneen sant bi mujj mi suñ naa ko wax nee na naa seedal mbooloo mi ne mboolem jàngalekat yi nekk ci daara ji moo xam ñu féete ci wàllu alquran bi wala ñu féete ci wàllu école bi nee na ma ngi seetal mbooloo mi ngërëmam ak santam ci ñoom ñëpp ndax gis nañ résultat yi kokki di am kokki amul bitse suñ demee ba takkali di ko takkaleeg lii sa mariama bu nekk gore muy tollale ak moom ñu di ko tiise ñu di ko tëkkaleeg euh, prytanne militaire bu Saint bi di ko tëkkaleeg Notre Dame du Liban maanaam kooku kenn ku nekk xam na ne loolu su amee xale yi jàmbaar lañ waaye jàngalekat yi ñoo taxaw seeni résultat foofu la àgg kon ñeena ñooñu mënta mënta dem mukk te santu leen ci kanam mbooloo mi ñaan mbooloo mi tamit nañ leen ñaanal yàlla ndax résultat yi ñuy ci kooku yëpp xam leen ne ñooñu ñoo ko ŋënk ñooñu ñu ko def waaye ñu leen di gën a soññaat wax leen tamit nañ gën a taxaw nañ gën a góorgóorlu liggéey bi day doog a tàmbali waaye àggagul ngeen baal na ak ñu ngi jégg ni lu ci dëng nag ci man lu mi doon wax sama matadi la waaye du sëñ Maxtaar mi ma yónni woon li ma waxoon mbot na rafet na jot na ngeen baal naa ko salaamaaleykum wa rahmatullah